Ah, c'est Ibrahim Sall, coordonnateur euh, de KVSP, initiateur euh, de ce rassemblement. KVSP, c'est un collectif d'action, de veille et de suivi du patrimoine. nous avons créé ici. Nous regroupons presque toutes les forces vives euh, de la commune. Salam alaikum, Tourbi Patrice Silva, acteur communautaire, communautaires, président ASC Gouigui, acteur de développement. Si nous comme le président Ibou Sall, c'est juste pour alerter euh, sunu autorités yi pour danger yi ñuy gétee que ñoom it ñu mëna jël les devant mëna jël aussi également décision yi war que ñu wajal nawet bi nimu waré waaw tay dañoo xol dañoo waxoon il faut ñu def rassemblement bi dans le but que dans le but de alerter les autorités étatiques et locales muy lan muy dañoo nekk ci benn moment boo xam ne nii c'est pré-hivernal Djiddah euh, Thiaroye Kaw commune bi ñu nekk zone à risque d'inondation euh, travaux yi fi nekk muy les bassins les bassins de rétention yi nga xam ne fi aussi nekk dans un état boo xam c'est inquiétant euh, des travaux de grands travaux yoo xam ne nii ñu ngi fi inachevé comme loolu nga xam ni nii moom causé woon inondation yu mag yi amoon daaw au niveau de Kermassar, Massar yooyu travaux mu ngi on kon dans nañ zone qui est c'est à risque d'inondation mais aussi ni ñuy le bassin bi ak lépp lu nekk autour du bassin Nous euh, tenir compte également si réalité ak attente population yi waaw loolu loolu loolu mooy Nous euh, association bi ñu créé depuis plus de trois ans donc boo xoolee euh, Ibou wax si environnement mais man damay aussi si si tout ce qui touche le bassin mais autour du bassin ndax buñ ko le bassin yi balaa ériger plus de 9 enfants yu fi décédé te boo ba tay fi so xolé ni ñuy bassin bi ak ni fawé euh ñun dañu wax bassin bi ak en tenant compte aussi si xalé yi ci fi ñuy euh ak infrastructure pour réduire risque yi am ñu dugg ci biir bassin doublement ou triplement doublement parce que l'état des l'état des bassins euh, aussi les grands travaux la route de ñetti mbaar bi nga xamné ni ay ay tuyaux lañ ko def tuyaux yooyu yëpp nañ to cette route là dafa nek dafa am ay points ay points de connexion yo xamné ni nii ah évacuer ndox mi muy dem si les stations de pompage jóge fofu di dem si bassin bi kon route bobu noonu bu bu pareewul canal yi fi nek toj kon fi mu tollu ni ah ñun ñu ngi si danger gis nañ lolu gis nañ état au bassin bi nga xamné ni depuis cinq ans ou six ans 2016 lañ

une zone où nous alerter les autorités Nous ngi ci moment de des opérations de pré de de pré hivernal sentiruñ ci commune gis communes yi nga lancé une alerte euh, les opérations pré hivernales commencent à faire. Pikine Ouest Pikine Est la même chose parce que 90% de de leur système d'addiction est euh, curé. alors pourquoi pas Djiddah Thiaroye Kao bi une zone d'inondation vive maintenant tous ces états là il est temps pour que nous ñu def euh, rassemblement c'est un cri de cœur Nous lançons aussi alerte envers les autorités c'était vraiment ça le but de ce rassemblement d'aujourd'hui waaw maire bi luñ koy luñ koy wax euh, moom mooy mu gën a bàyyi xel euh, infrastructure yi surtout autour du bassin parce que boo xoolee bassin bi ñu ko defaree daanaka c'était dédié autour c'était dédié au sport parc sportif la et mais soo xoolee installation yenn yi ñu ngi dégradé wu centre bi ñu taxaw ni travaux yi sont inachevés euh, xale yi amuñu fu ñu foowee boo xoolee espace bi desoon ci ginnaaw fële entre troisième bassin bi daanaka camion këriñ yi ñoo koy occupé insalubrité goudigui difa indi insécurité parce que bo xolé épave auto yi nek autour du bassin c'est un danger permanent day yok agression yeeg yooyu donc motax ñu bëggone lépp lu wër bassin bi ñu set setal ko ba mu rafet aménager ko de respecter parcours sportif espace yenn yi dess ñu aménager ko ay terrain de jeu pour les enfants tel que des terrains de mini foot et autres pour que xalé yi am au moins fuñu fowé bu kiwé ñu mën leen di encadrer di kii di mën di saytu sen lépp pave yi ñu dindi ko mu wañu insécurité bi comme ça ay parce que nit ñi dañu làqatu si ginnaaw oto yi di koc meer yi xey ak yoyu xam lu yagul dara jey amna fi mais bo xolé li tax problème bi yegg fenn fi ci boy bi ñu rayon fi mom moy nit ñi bi ñu affaire bi amé ci guddigi ñu bari dañu jàppoon ni à faire agression là, nit les gens ont peur même de sortir le soir donc nous nak ñu ngi tout ce qui est autour du bassin nous les les luñ koy mais en y associant aussi les associations euh, telles que KVSP ASC yenn acteurs yi pour que vraiment ñu tenir compte ci réalité yi am fi ak spécificité yi am ci gox bi. voilà deuxième plan d'action bi mom lañuy mom lañuy la après rassemblement bi buñ ko défé ba paré les conclusions dañuy xol fim toll ni la suite à donner à cela. li mooy nek suñu premier plan lancé alerte bu ñu si bu ñu si jógee si ni dañ né quest ce qu'on va faire. on va faire vers une marche. bo xamné ni bo gissé tay ñu ñu def li ñu def euh, rassemblement bi fi sax. c'était pour wax ko population bi. nga xamné ni ëlëk buñuy dem di def marche. c'est la population de Djidé Thiaroye Kaw ñoy momu marche bi ñom ñoy genn def marche.